mom jëmu ji mu nekk commissaire aux enquêtes économiques turam di wuyoo ci commissaire Khadim Ndiaye nekk itam responsable politique bu mag ci doon bu Touba ñu ràññee ko ci parti bi di APR mbolo mu takku daal di nekk ci ginnaawam ci élection législative yi ñu dëgmal mu dakkal ay activités ci biir parti bi di APR dal di wutali Pastef ngir fas yéene jàppale ci élection législative yi ñu dëgmal ba ñu am ndam conviction bi waral lu ni mel daal dina koy fësal ci kanamu Serigne Cheikh Thioro Mbacké mi nekk tête de liste bu Pastef ci département bu Mbacké. Pastef bëri ko la ci mbartal ci Sénégal rawatina ci Touba waaye nag politique da ngay yokk doo wàññi kon sëñ bi la victoire duñ ci dute ñëw na ba pare dañuy ñëw jàppale rek ci liggéey bi sans condition tey ma yëgal ne damaa ñëw seey ci dama ñëw pour say ci bir passé nek Baye Fallou passé fas yéene liggéeyal man je suis un fonctionnaire de l'État du Sénégal lenn moma ñor depuis bima nekké fonctionnaire 1900 2007 ba nëgë service du commerce bu may bu ma dem ben credo la am moy la réussite de la mission qu'on m'a confiée ci jub jub jub jubanti ak djubal kon tay man sama politique politique de développement la musuma dundee politique te loolu sama baat ci kaw musuma dundee politique musuma lekk xaalisu politique lépp lu ma am man maa ko def ci doomu adama yi kon nag su ma demee ba gis loo xam ne gis naa ne askan wi taxul leen a jóg Touba taxu leen a jóg ma am sama fulla sama fayda génn fa rocceeku nang dem ci ñi nga xam ne jàpp naa ne Sénégal moo leen ñor tàccu leen loolu ci kaw kon sëñ bi sëñ bi damaa jàng tuuti Sénégal vision cinquante sëñ bi li ma ci gis wa ma seen naa illa ma xalim naa du ma seere lu ma xamut du ma naafiq waaye bu ñu ko toppee Sénégal fii ak 25 ci kanam dana développé lool li ci gën a doy waar mooy les pôles territoire dëkk bu nekk nga fekk ko la nga xam ne moom la tubaab bi tuddee avantage comparatif la nga xam ne moo ko moom te keneen bokku nga fexe noo ko mën a valoriser ndax li ñu seetlu mooy Sénégal depuis les indépendances am nañ souveraineté politique mais on n'a pas une souveraineté véritablement parlant amuñ souveraineté économique amuñ souveraineté souveraineté énergétique amuñu souveraineté alimentaire lépp lu ñuy lu ñuy lekk dañ koy jéggaani moo tax bu sëñ bi problème prix pour ñu régler ko dëgg la état Sénégal li ñu ci jëm mais structurellement pour nous régler ko faut que nous suñu bob ci mbay mi nous mangeons mën suñu bopp ci faut que nous ñu mën suñu bopp ci lépp ba mën a gérer suñu des industries des mastodontes industriels yoo xam ne ñooy transformer mais pas des de conditionnement. de conditionnement le lire vision 2050 je l'ai dit, un Sénégal souverain juste et prospère dans tous les domaines avec l'écologie de pôle territoire, capable donc de supplier Dakar et je le dis et je le répète avec un système euh, de financement endogène. Tant qu'on dépendra de l'extérieur, on ne sera jamais indépendant ou souverain. Et puis, vous lirez, source de financement, il des sources de financement endogènes. Si on ne fera appel à l'extérieur, à l'aide quand c'est nécessaire et de façon ciblée. L'autre, c'est que trop. Moi, je suis un acteur économique. État recommandé, Sénégal recommandé. Quand vous me disiez le président Ousmane Sonko, le président du domaine Ousmane Sonko un leader que beaucoup de gens ne connaissent pas tuuma yi bëri na ci moom tuuma yi bëri na jàpp naa ko sëñ bi am na lu ma jàpp président Ousmane Sonko mooy bi nga xamee ne yàlla jox na ko nguur gi képp ku mas a moom nga xam ne sonnaloon nga ko dimbali la jàppale na loolu mooy reconnaissance ak reconnaissance ak tamit considération lu jafe ci parti nag beneen bi mooy nit koo xam ne am na fulla sur ses convictions bu xasee ba jàpp du bàyyi bërki dem bi mu demee jigéen soor li ma wax sur l'autodétermination de la Casamance dañ ko bëgg a détourner mais il a été clair et net c'est une position courageuse le Sénégal un un indivisible c'est position courageuse muy nit ku bëgg Sénégal nit ko xam ne tuumaal nañ ko quelqu'un qui est très résilient bi mu tàmbalee ba mu tey bu doon keneen la ba tey faagaagal nañ ko bu yàgg kon Mbàkke ñëw naa ma ak sama mbooloo ñëw seey si Pastef doon si taalibe nag on vient sans condition jàppaleel sa liggéey bi ndax Mbàkke da koy liggéey te ba lii door a ñëw ànd ak yow jàppaleel ci liggéey bi ba nga xam ne lañ ko doon def fële lu ko raw mën nañ ko fii ñu ngi leen di sant di leen gërëm di xam ne bis ni tey Pastef Pastef Pastef yéen ñëpp nag jërëjëf kon leer na Pastef Pastef Pastef sëñ bi jërë ngeen jëf sant nañ bu baax baax maa ngi leen di sant di leen gërëm ci mobilisation exceptionnelle bi ngeen def waroon na fee gën a neex dafa xat waaye bu liy jàllee danaa leen seeti kenn ku ci nekk na ma ko daan defee ba ma nekk affaire nu ko raw dinaa ko defee sama tànk danaa ko sol ba fépp fu nit nekk ci Touba muy sama nit danaa la seeti. lenn ci ay qualitéem ak taxawaay bu mu amee ci wàllu politique loolu yi ñu ànd ak moom di ci indi ay seede. sëñ Xaadim Njaay mi nga xam ne ñoo dekk ci département bi. depuis fukki at ak ñaar ñu ànd di liggéey liggéey bu rafet ma ne ko comme nag man dañuy dem Pastef di fa liggéey te noo bokk fu fa jëm man damay soutenir sëñ Xaadim Ndiaye ñu ànd liggéey ci département bi sëñ bi topp ci sa ginnaaw ndax fii ku fiy wax Pastef yaa ko fi nekkal kon ñun ñaar ñëpp ci yow lañ mën a topp waaye man nag dama ko jaare ci sëñ Xaadim Ndiaye nu ànd fas yéene daa jàppale ci département bi fa nu nekkan tey jii jóge nañ fa kon sëñ bi loolu leer na ndax sëriñ Xaadim Njaay ba ma ko xamee ba léegi ñu ànd mësuta yàq dara ci liggéey bi mu doon liggéey ak njubam ak ngoreem ak maandoom moo tax ma tànn ko ñu fekk sëñ Cheikh Coro Mbàkke ñu ànd liggéeyal département bi ñoom ñi kat fas nañu yéene def seen kemtulaay kàttan ba Pastef am majorité assemblée nationale ndax loolu bu ñu sukkandikoo ci ñoom jàpp nañu ne mooy njëriñal réew mi di Sénégal. ndax dama yaakaar ni sëñ képp ko xam ne am xam nga dara yaakar na nguur doo ko xañ kon señ bi nan jema watel Pastef mu am majorité lolou moy li woor yaari nguur ta am yaari nguur ta am yaari nguur ta am képp ko xam da ngay bi assemblée nationale yoy yoy du luñuy ñuy watel ko sa nguur mu mën li liggéey mais boko kenen du mën a liggéey lu lu yëkkati ñu galgal ko loolu yéen ñëpp na ngeen ko xam bu bis baa na dem woteeli président Diomaye Faye loolu laa bëgg ngeen watee ko lii mooy li leer ñëwuk commissaire Khadim Ndiaye ci biir parti bii di Pastef nekk lu Serigne Cheikh Thioro Mbacké rafet lu lool ñu ngi lay ñaanal yow ak sa mbooloo choix gi ngeen choix coalition te tey bis bi président Ousmane Sonko yàlla boo am dara loo leen di rëccu ndax day mel ni yéen comprendre Sénégal jëm lii la fonctionnaire bi daa war a def lii mooy xam seen responsabilité nga def kon yéen xam ngeen lan mooy seen responsabilité ci réew mi jëm kon ni ma ko waxee mooy parti boo xamante raamul dafa xëy xëy dox li ko waral mooy coono yi nga xamante ni nguur gi fi nekkoon teg nañ ko Pastef ba ñu àndoon Pastef kon boo leen bàyyi bër ba ngeen nekkoon ñëw da ngeen jàppale Pastef kon sëñ xaan da ngeen wax dal leen ne gàmmu fii ci Pastef Pastef xamul militant ki fi njëkk ak ki fi mujj Pastef li xam mooy engagement ak détermination moo fekk rek ku ci la nga kon boo leen ñëwee Pastef am fi engagement ak détermination li fi ñu fi njëkk am mën ngeen ko fi am kon ñu fii ci Parcelles dañoo ñëw ne réew mi dañ ko bëgg a a delloo na ne depuis 1960 la nekk ñoom nag ne dañoo fas yéene li ñëpp bokk ne lii na li ci nekk ba décorté ko sañ xaar ñëw lambatuwoo ñëw nga xam loolu mooy Parcelles la patriote sëñ xaadim yow yi nga amal ñep ñi ngi leen dara jam ci kaw ben condition mooy ñu tabax senegal ta département Mbacké 1960 ba léegi nga am ay leader politique mais leader politique ñu am yépp dundul ñu département mais dañu dund département loolu moy dëgg kon ñu liñ fassé buñ demee ba sun mandat di jeex bu may 2050 mais bu 2029 di jot ñu bañ dugg ci département di campagne lan mo koy waral moy suñu jëf ak suñu comportement kon ñu ngi leen sant yow ak sa mbooloo di leen dalal jàmm fii ci Pastef la Pastef ñu ànd à partir de maintenant bëgg nañ ñi nga àndal ñu dugg ci ko ñuy def porte à te xam nañ ne mën nga ko def capable ndax li ñu wax seere ci yow lépp lenn la mooy yaa yàgg def ci politique mais politique déwul ci yow dara loolu avant nga ñu ko wax seere lañ kon waa Touba sonn nañ waa département Mbacké sonn nañ ñu mel ne yow ñoo mën a jubbanti ci département ci seen xam-xam ci commissaire aux enquêtes économiques Bidi di Khadim Ndiaye gannaaw ak ñewom ci Pastef fas na tambali ay activité waccu ci terrain bi def porte à porte sensibiliser askan wi ba 17 novembre bi ñu jëm askan wi dal di votel Pastef Loli nek bëgg bëgg commissaire Khadim Ndiaye ci diwaan bu département bu Mbacké.